yéen yi ñu ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf fan la Ousmane Sonko toll tontu li mi ngi ci xët mu njëkk journalisé ko ubbil yéenekaay bi xamal nañu ne li tax ba ñu dindee mbalaanum kiirlaay Ousmane Sonko keroog àjjuma ci assemblée nationale boobee ba léegi déggaatuñu ci dara moo di juge bi huitième cabinet bi yore dossier bi jotagul këyit bu koy firndeel ne assemblée nationale dindi na immunité parlementaire bu Ousmane Sonko te li fekk jotul loolee du mën a convoqué Ousmane Sonko loolee nag mu di leetar bi te juge bi avancé journal bi nee nañu tey jii ca la ko assemblée nationale war a jébbal ministère de la justice moom it mu jottali ko juge d'instruction bu huitième cabinet cabinet bu ca jotee ca lay soog mën a convoquer Ousmane Sonko sursoi nañu moom jiital parti Pastef gi di Ousmane Sonko ak li wax ne fenn la demul loolee bu ca delluwul gannaaw bu ñu ko tegee loxo bu boobaa yëf yi du sedd ci moom ndax kaso la ñu yóbbu dañu koy mandat dépôt directement Le Quotidien ñoo coowal Ousmane Sonko ak am na benn policier ak benn gendarme bu ñu ci jàpp ba jébbal leen brigade prévôtale li ñu leen di tuumal moo nee nañu dañoo nekk libération nañu jàpp gi ñuy jàpp ñi jappal tank Ousmane Sonko yeuf ya ngay gën di law di gën di wee ndax ci diggante àjjuma ak samedi bii weeso jàpp nañu ci ñom lu mat fuk ak juroom ñaar ba nga garde vue am ci ñom ay étudiant ab chef d'entreprise ay délégué médical professeur français ay agent Yu liggéey ci Senelec ba ci ay commerçant kat bi di dàmboj libération nañu momit it nañu ko mom ak Abdou Karim Gueye xurum xaq ñi ngi leen teg loxo kérok samedi ci place de l'indépendance ci manifester yu coalition du peuple organisé won ci amuñu ci autorisation dàmboj mi ñu japp libération nañu mo waral kuréelu sandikaay jàngalekat yi di GV bëgg a yëglu li ñu fas yéene moo di du mooyu njàng mi ngir di ñaawlu jàpp gi ñu jàpp daam mbóoj ak yeneen i jàngalekat yi ñu fi jàppoon bu yàggul loolee la ñuy jéebaane li Ousmane Sonko di wax ak a jéebaane mu di complot bu mu ne moom la ko ñenn ci ñu nekk ci état bi def ci mbirum Adji sar Sud Quotidien nee nañu ci ñi fare ci nguur gi am na ñenn ci ñoom ñu ci indi bokk na ci ñoom honorable député Abdou Mbow mi xamle démb ci rajo Futur Média ci émission bii di Grand Jury ne na yeneen yitte dul di complot ma Samba wala ma Demba Seydou Gueye nañu du APR tey du état bi amul kenn ci ñoom koo xam ne taqe nga baa nga laale ci coowal mbës mi docteur Momar Thiam dib spécialiste ci wàllu communication xamal waa Sud ne am na ñoo xam ne ngir bëgg lu neex seen kilifa dana tax ñu jóg def loo xam ne kilifa gi santu leen ko du yëg du tiin niti diine yi jóg ci seen coobarey bopp ngir dox tànki jàmm ci coowal mbës mi l'observateur ne nañu demoon nañu seeti Ousmane Sonko abbé Jacques Seck la Mame Matar Gueye imam Youssoufa Sarr ak imam Cheikh ba ñu demee cité kër góor gi kër Ousmane Sonko la ñuy waxtaan ak moom am na lenn lu ñu ci lobs wax ba wax ñu ne ginnaaw seenub gisee ak Ousmane Sonko war nañu gisee xale bu jigéen bii di Adji Sarr la Sénégal nañu Abbé Zak Seck ak Mame Matar Gueye demoon nañu ca kër Ousmane Sonko ngir doon dox tànki jàmme ci coow li ñeneen ñu demoon seeti Sonko ngir doon ko wan seenu njàppale la Sénégal nee nañu ñoo di Mamadou Diop Decroix Bougane Gueye Dany ak Habib Sy Vox Populi nañu ñooñee demoon kër Ousmane Sonko naan dañu koy jàppale ndawi APR yi yàkk nañu leen musiba mbelengaan muy Aïda Mbodj di Diop Decroix ba ci Alaaji Malick Gakou yi di waa COJER ak ñu ñu àndal nee Ousmane li ci war ñëpp moo di bàyyi yoon di justice mu réglé ko ñàkk di vaccin yi Sénégal doon réglé ci initiative COVAX soleil national nee nañu léegi tey suñu réew di Sénégal jot ca wàllam ne Sénégal yi yegg si nañu démb ba ñu teg leen ci loxoy ministre de la santé Abdoulaye Diouf àllarba ji di ñëw nag te la ñuy jot lu toll ci 324 000 doses vaccin yu AstraZeneca. comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen cuuraay rek tak rek